nag ñun amul lu suñu bis bi tey muy 8 mars muy journée de la femme te cent cinq jours benn bis la lañu ci sargalee kon nag une journée ça se kon nag tey dañ koo feetu neexal ko ñu neexoo ko mu neex mais teewul feet bi lu mënti am lépp dañ ci doon di liggéey di jàppale suñu moroomu jigéen ñeneen ci bit bi nga xamante ni mënuñoo agsi ci ñun fi ñu nekk tey ñu doon koy oyofalal liggéey bi def ko nag ay fan yoo xamante ni ñetti fan def nañ ko ko depuis fin février ba tey ñoo ngi ci liggéey bi tey daanaka dañ doon def clôture bi rek ci centre de santé bi pour jëmbal bis bi Marie Stopes international nga xamante ni à chaque fois bu ñu jógee ñu sage-femme district Mbacké ñoom ñoo ñuy appuyer di ñu jàppale ci liggéey parce que ñun doon mënuñoo dem ñoom ñoo ñuy jàppale fu ñu nekk fu ñu leen woo ñu ñëw wuyu ñu kon mention spéciale à Marie Stopes léegi nag comme que affaire cancer la ñuy waxtaanee à chaque fois dañuy wax di ñaax jigéen ñi pour ñuy dem di def dépistage yi parce que dépistage nekk na loo xamante ni lu baax la jigéen saytu sa wér-gu-yaram dafa baax xool say ay ween xool sa bëtu njurukaay ndax cancer nekk na loo xamante ni baaxul bi na xamante ne moom lañu ciy gën a bool ñu bëgg ñëpp jàpp ci mooy vaccin bi ñuy defal HPV bi ñuy defal xale yi ñi nga xamante ne dañoo am juróom-ñeent ba fukki at ak ñeent bu ñu sañoon képp ku ci nekk yi la gën a jege ñuy ñàkku si bëgg nañ trop xale yi ñëw di ñàkku si parce que moo leen aar ci cancer bi fu leen boobu doom moom moo xaw a des te ñu nga xam xale yëpp zone maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mention spéciale nag waa poste de santé municipal waa team municipal aw ma seen fay <laughs> damay nuyuwaat ñëpp rek képp ku nekk ci centre de santé bi muy sage-femme di médecin di di ñëpp rek personnel bi fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu wér a wér a wér ci taxawaay bii nga xam ne tey may ngeen ñu ci boole nañu ci bañ bokk ci su ma leen nuyoo nag nuyu naa ñëpp rek sans exception mais nag di beral également nuyoo yi jigéen ñi parce que bés bi tey suñu bés la kon nag maa ngi souhaiter à toutes les femmes une bonne fête du jour de de la journée de la femme parce que ñun tey dañ ne le mois de mars c'est le mois de la femme ñu jël ci benn bés boo xam ne muy le 8 mars jagleel ko bépp jigéen kon tey defe naa ne journée boo xam ne war nañ cee xam suñuy droit rek muy journée internationale droit de la femme tey defe naa ne cinq droits yi ñu ci am Pa Abdou Dia wax na ko léegi kon jarul ñu ciy jaaraat. ah mu doon bés boo xamante ni tey ma am si beneen taxawaay muy taxawaay monsieur le ministre fekk nañ fi nag ay éléments mais comme defalu leen ma ci bële yi dama leen di jox nuyoo monsieur le ministre Gallo Ba tey ku ne xam ne ni tey conseil des ministres la comme niñ ko waxee xëy na bëgg na ñëw dem Daaru Musi mais bu sañoon tey mooy ànd ak yéen bés bi ba mu jeex ndax ku ne xam na ni Daaru Musi délégation ci turu président la fay demee kon nag nee na mi di jaajëfal. di leen sant sant ci honneur bi ngeen ko def tey muy parrain parrain journée bi tey mi ngi leen sant bu baax a baax a baax ndax moom defe naa ne ku ko woo ci jigéen dala ci wis ndax ku ne xam na ne moo valoriser la femme rawatina nag suñu département de Mbacké bii ñun ki ñu gis naw ñu ndax tey dañ ne buñ ne nekkee alom na ko gërëmee cooy kon monsieur le ministre Gallo Ba ñu lay sant di la gërëm ci gëdd gi nga jox jigéen dooleel gi nga dooleel jigéen ak wax dëgg fa yàlla valoriser la femme sénégalaise encore une fois kon nag monsieur le ministre nee na lépp lu ngeen nekk ak yéen mi ngi ci dina ànd ak yéen bés bi ba mu jeex tàkk fas yéene nag tey lépp lu ngeen ci soxla tey muy ren lu mu ci def tey xeeb na ko bu déwénee incha allah xëy na dana gën a neex ndax da di laaj kay de charge lépp lu ngeen soxla moo koy def suba ba ngoon jot di wax ni nag bés bi suñu bés la lu ñu neex lañ ciy def kàddu du bëri parce que dañuy bëri tey kàddu yi du mën a bëri te bu ñu nekkoon ci politique ndax ku ne xam na ni démb assise nationale de l' autonomisation moo amoon et de l' entrepreneuriat loolu rek day wan tey gëdd gi son excellence le président Macky Sall jox jigéen démb tey sa ku ku le 7 mars démb bii ku ne xam na ni sa dem na ci talaatay ndeer ndax ku ne xam na ni talaatay ndeer 7 mars la woon mille mille huit cent vingt démb nag dafa mel ni denkalaat nañ loolu tey te lépp lépp lépp ci doole son excellence le président ba Sall bëgg gi dëgg ci bëgg jigéen ak ni mu ni mu fulaalee jigéen ak ni mu fonkee jigéen kon nag euh, maa ngi souhaité ñëpp une bonne fête di wax ni tey moom dañuy bëggee kàddu yi bu bëri. ndax tey jigéen ñi ñoo ko moom te defe naa ni bu ñu nee jigéen sax sànqal lu am solo. ndax kenn neewul sage femme defe naa ni kenn waxagu ko de. Mhm. ci maternité yi. sage femme lañu. kon sage femme yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. maîtresse sage femme baa ngi fii bu centre de santé bi. Euh, ànd ak amical bi yëpp. ndaxte mënuma lim ndax centre sage femme yi ñu ngi ci biir centre de santé bi mais ñu ngi ci biir poste de santé mais dañoo am amical. buñ ne centre de santé sa loxo ci nuyoo bi nga jàllaleen ma ko sage-femme ci maa ngi teg sama loxo sa loxo nga jàllaleen ma ko ci sage-femme district biir loolu aussi ñu ngi remercier infirmier chef de poste bu ñu nekkee ci poste ci maternité yi di liggéey am na ay jigéen ñi jàmbaar itam yu nekk seen wet ñoom matron ndax district bi centre de santé bi am na jamono yoo xam ne jamono neexu woon kon li ñuy wax sage-femme yi bariwul woon matrone yi ñoo daan def accouchement yi mais àddina neex alhamdulilah état di def effort ba léegi nii képp sage-femme yaa ngi bi accouchement yëpp sage-femme yi ñoo koy def àndandoo seeni matrone kon ñu leen di sant leen gërëm te vraiment liggéey bi rafet na ci maternité bi li a jafe damay wax toujours ni maternité kii bi ñu am dañu am benn euh, déggoo ci seen biir. Mhm. sage-femme mën naa absente kenn ko yëg ndax ñetti des dinañ fexe ba complet gam ba man duma ko fam kon loolu ba tey boole ay xol la ak kon ma di ci encouragé bu gën a baax triage aussi major mu nga fa nag ñu ngi koy gërëm moom tam di ko sant ndax dafa mel ni service bi moom dafa mel ni dafa jigéen ne ay jigéen rek a nekk responsable waaw maternité maîtresse sage-femme jigéen la major triage jigéen la kon nag LCD ba jigéen la kon nag vive les femmes waaw waaw. waaye ay jigéen ñi fàttewaat nañ seen bopp. waaw yàlla bokk man doo jiite nag boo demee jigéen ñi macha allah ñoo ko ëpp yàlla nañ gën a yokk ci biir loolu nag maa ngi nuyu monsieur Thiar bu baax jël nuyoo di ko teg ci loxo mu tegal ñu ko ci suñu borom kër yi ñun ñëpp ndax bu su teewee mel na ni ñeneen ñëpp teew nañu te tam ñu ngi profité di sant suñu borom kër yi. ndax defe naa ni liggéeyu santé lu méttee métti la kon santé di defi ni borom kër yaa ca doon rek mu métti kon vraiment ñoom itam di sant bu baax a baax a baax daal comme ni ma ko waxee rek kàddu cant la pavillon d'hospitalisation même chose ñoom amuñu dara amul guddi amul bëccëg nit ñaa ngi dugal ci génn tout le temps di leen wax rek man su ma amee tey jii lu may wax mooy nañu gën a góorgóorluwaat Mbàkke moom kenn dàqu leen a liggéey tey jii laa jóge Diourbel ci RAC régional mais amul kenn koo xam ne nii mën nañu ci dara ci liggéey bi kon nañ gëm suñu bopp gën a jàppante waat ba nga xam ni ñi kenn du mën dara suñu diggante parce que bu ñu may kenn ci suñu biir ñu ciy dugg di am ñu ñuy àtte ñàkkal ak ñu ñuy wax ak ñu ñuy bàyyi nañ jàppante gën a góorgóorluwaat jigéen ñi nga xam tam ñoo yor seetu hôpital bi ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax ñu ñaan leen ñu gën a góorgóorlu ndax accueil ci cet la commencé ak cet bu neex ci biir structure sanitaire ndax kay faju bu doon sagoo ma bu dikkee fekk fa condition yu neex yoo xam ni dana tax sax mu gaaw a wér ñiy faj aussi dañu war a nekk ci condition yoo xam ne condition yu neex laboratoire nag ñoom ku ñu seet ba pare ñoom ñooy xool sa sang lan moo ci nekk loo xam ni nii xëy na feeñul woon ci bi la bi seete kon vraiment laboratoire ñu ngi remercier équipe bi yëpp di ko jaare ci loxo bàcci mu teg ko loxo personnel bi fa yëpp ñu ngi liggéey bu baax ñu leen di féliciter encore une fois de plus kon nag nañu naw suñu bopp te bañ a jël suñu nga xam ni moom la ñu am fii ñuy tedde ñu yàq ko ba mu yàq ko bu ëllëgee kenn du ko bëgg ku am sa fenn danga koy defal ba mu baax lu ko waaw vaccination bi moom El Hadj Dibra jox euh, nuyoo bi mu teg ko ci loxo équipe vaccination bi nga xam ne moom moo ko jiite ñoom itam ñu ngi def am solo vaccination defe naa ci ci bi district Mbacké moo nekk toujours en kon loolu am na solo ndax El tam am na rôle bu mag bu ci vaccination par surveillance épidémiologique.